Mame Birame fay ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. Elisabeth maa ngi lay fay eh, di leen eh, nuyu di nuyu waa réew mi yëpp di nuyu. waa réew mi euh, mhm, nga bokk ci conseil national des aînés du Sénégal euh, ñu jot ci ay xibaar ne euh, troisième âge ñoom ñoo ngi ñaawlu jamono ji lii di seen condition de vie li ko waral mooy pension yi ñu jàpp ne dafa tuuti te li ni mel IPRES moo ci taxaw tey ñu bëggoon a xam seen position ci mbir moom. waaw man de maa jiite conseil national des aînés du Sénégal. bu ñuy wax nag conseil national des aînés du Sénégal mooy kuréelu mag ñëpp dañu tënku foofule ba liggéey ci ay ati at ba agsi si lii mm-hmm. kon tey jii mën naa toog war wax ci mbiru mat ñi mm-hmm. muy mag ñi nga xam ne am nañu retraite te boo xayma téeméer euh, ci mag ñi nga xam ne am nañu juróom fukki at ak lu topp mm-hmm. euh, ñaar fukk juróom rek ñoo am seen retraite parce que ñoo doon liggéey ci yenn jamono yi muy IPRES muy FNR bu leen boolee mhm. ña sa des nag léegi yëpp amuñu retraite kon bon mag ñi bu ñu tëbee wax euh, bu ñu waxee ci affaire IPRES war nañoo sóoraale affaire FNR war a sóoraale tamit mag ñi nga xam ne amuñu retraite te war a am si as lu ñuy dundee. kon tey euh, mbir mi dafa mel ni ñaari langage la bu ma la déggee ngay wax. man euh, damay tëddee njaaxaanaay ndax te boo jiitee kuréelu mag ñi. da ngay sóoraale mag ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci këru liggéeyukaay euh, këru retraité yu IPRES mhm. këru retraité yu FNR mhm. euh, maanaam ñu nekkoon fonctionnaire daal di sóoraale tamit mag ñi nga xam ne amuñu benn retraite ndaxte dañu liggéeyal réew mi ci seen fànn yu nga xam ne indi nañ ci koom-koomu réew mi dara. kon yow sañoon tey au lieu ñuy wax yokku euh, pension yi ñu gën koo yaatal ñi nga xam ne jot nañoo servir euh, réew mi te pourtant tey bénéficier wu ñu ci. voilà gën ko yaatal boobu ñu ngi koy tuddee minimum vieillesse. lenn lu nga xam ne mu warul bañ a ñàkk. ñu yëkkati jox ko mag ñi d'ailleurs démb sax maa ngi doon liggéey ci yu demee noonu ak ay kilifa. yu nekk BIT ak yeneen kilifa yu nekk ci yenn euh, ministères yi. Euh, waaye nag du tere bu dee IPRES yokk gi moom euh, amoon na ay yokk yokk yokke hmm. euh, ñeenti yoon yokk nañ fii suma suma suma fàttali ko ba ci leneen tamit du si tegu waaye masuñu yokkal ci jamono yooyu ñu yokk noonu masuñu yokkal retraite FNR yi hmm. ndax dafa am lu koy lu koy téye lu ko gàllankoor ba nga xam ne loolu mënta nekk hmm. waaye war na mën a nekk ndax euh, lii dal retraité yi dalul ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci kër yi nga xam ne liggéeyukaay leen benn la mhm. te boo seetloo mag ñi ñi am juróom benn fukki at lu topp du teg genn wàllu kër yëpp ñoom ñoo koy doxal kon tey jii bu nekkee ci situation surtout Covid bi waroon nañ man sóoraale di gëstu mag ñooñu. mu am loo wax ci say biir wax muy euh, certainement li ngeen nekk di liggéey euh, li nga xam ne euh, donte fësalagu leen ko nga ne liggéey ngeen ceeg BIT ak it ministère tey ñu bëggoon a xam lan la lu muy wundu waaw loolu liggéey bi yàgg na sax du du léegi sax. Mhm. depuis deux mille dix neuf liggéeyoon nañ ci ñi nga xam ne amuñu pension ñu jox leen li ñuy tuddee minimum vieillesse. d'accord maanaam. projet la wax. projet la bu nga xamee ne projet la bu ñu tënkoon ba taxawal ko. Mhm. waaye nag des na tuuti pour mu mën a yem yemb. ndax il faut ñu dem seeti fan la xaalis bi fan lañ koy mën a jëlee pour mën ko teg ci loxo mag ñooñu bu fekkee ne sax naam joxuñu ko mag ñi nga xam ne ñu nga am juróom-benn fukki at ak lu topp. Mhm. ñu xayma ko ci juróom-ñaar fukki at wala juróom-ñetti fukki at. di seet nag ndànk-ndànk nan la ñuy mën a accès pour mën a waabale ñëpp ci biir. nee nga yàgg ngeen ci waxtaan <coughs> ndax tey jii ngeen ay mécanismes yi nga xam ne euh, noonu ngeen man a jaar pour xaalis mën cee génn ñu man a neex. waaw waaw waaw waaw am na ay maanaam buntu yu nga xamee ne euh, mënuñu ko xayma fii mënuñu ko wax fii yëpp. Mhm. mais buntu yooyu fu fépp fu nga xamee ne maanaam affaire fi nga xam ne ñu ngi fay amee pétrole fi nga xamee ni ñu ngi fay amee zircon fi nga xamee ni ñu ngi fay amee leneen ak leneen xeetu yooyu le am na ay yen taxes yi nga xamee ne tamit war nañ ko mën a def di si rocci tuuti lu nga xam ne buñ ko dajalee dina mën a yem loolu bu weesoo mm-hmm. retraités yi nag à retraités i war a si seen pension mm-hmm. euh, naam yokk euh, gi sax war na mën a ne waaye yokk geeg ñoom seen ak yooyu waxtaanee woon nañ ko depuis 2017 xam nga conférence sociale boobu nga xam ne dañ doon rek wax ci affaire retraite mm-hmm. am na lu ñu tënkoon daan ne de war nañ changer naka la tudd sart euh, yi nga xam ne moom moo yore ñaari kër yooyu le mm-hmm. boobu ba léegi kenn defu ci dara muy IPRES muy FNR te loolu metti na lool bu ñu ko defoon dina am ay bunt yu nga xamee ne dana tax ba nga xam ne retraités yi dinañ gën a mën a noyyi ay na yëwan bu retraité bu jóg daal di wax ne war nañoo mën na yokk am na fu mu ko teg te boo seetloo euh, euh, nii kër euh, IPRES di doxe mm-hmm. ñuy jël xaalis di ko dugal ci banque yi ñuy jël xaalis di tabax yoo nga xamee ne dañ koy liyee mu leen di di dara mm-hmm. sans compter cotisation yi même bu cotisation yi néewee mais dama ne kilifa IPRES yi war na mën a toog mag ñi waxtaan ak ñoom. waaye nit ki aussi bu la nekk dafay dafay daf lay day dajeeg yow yow nga xam xel ne daje bi am na solo mais nga naxasaayal ko toog ay lu mat ñaari at doo waxtaan ak ñooñu de lépp lu la dal lu la dab ci yoon wi yaa ko teg sa bopp. mu mel ni retraité yi ñoom dañoo déterminé tey jii nee nañu euh, li ni mel bu ñu leen ci wuyuwul euh, ñu dox doxu ñaxtu euh, fii ak ay fan ñu joxe délai daal di ne sax le 29 juillet ci weer wi sax ñu nekk dinañu amal benn doxu ñaxtu te ñu ngi ciy ñaax ñu jële fii ki nga xam ne moom mooy Racine Sy yow nan nga jàngatee tey seen i. <coughs> waaw gis nga man noonu nga ko déggee noonu laa ko déggee. te xam dama dama yaakaar ne. ñëpp bu ñu ci benn kuréel bu nga xamee ne moom donc moom moo war di mën a bu fekkee ne jàmbat gi dafa toll benn euh, naka la ci bu tolloo fenn. Mm-hmm. nga xam ne dañ ko war a waxtaanee waroon nañu au moins waxtaanee ko ñi nga xam ne ñun ñii nga xam ne ñoo jiite euh, euh, association yëpp. Mm-hmm. naam naam. Mm-hmm. association bu nekk. te biir IPRES bari na ay association ay xeetu xeetu xeetu association. Euh, looloo waraloon sax ñu ne dañuy dajale ñëpp te ñooñu xeet yooyu ñu ngi ci biir conseil bi waroon nañu boo amee kudd war doo lakk waroon ñu mën a ñëw ñu waxtaani ko bu boobaa ñu songanoo affaire bi mais bu fekkee ne ku nekk dafay wane bugg a wane sa bopp ak say doole ak sa kaddu ak sa làmmiñ defe naa ne loolu sax mag ñi war nañ ko di moytu waaw te kaddu gi war na doon benn ñu teg ko ci loxo benn nit mu dem yóbbu ko fi ko war a yóbbu bu fekkee ne foofu dafa të mu dem yóbbu ko feneen fu nga xam ne moo gën a kawe. te am nañ capacité boobu. tey bu dee ah. même donte waxuñu leen ko ndax yéen pare ngeen pour wàcc ak ñoom euh, xeex xeex bi ndax yéen a bokk même doléance waaw mais xoolal xeex bi nga xam ne yaa ngi ne xeex bi ñun demuñu xare. Mhm. demuñu xare mag mag du dem di xeexi. <clears throat> waaye mag day toog <clears throat> daal di wone ne lii ak lii ak lii fii ak fii ak faa danu war a jaar. Mhm. pour yëf yi mën a ne fi mhm. man nekkuma ci eh, jëlee leen fi kii jëlee leen fa kaa ku koy wax moom moo xam li tax mu koy wax waaye man li nga xam ne maa ngi koy sàmm mooy tëdd njaaxaanay seex di doxal li ma war a doxal di si soog ay kilifa yi eh, eh, loolu xam naa fu mu koy ñun depuis novembre ba le deux mille vingt mhm. liggéey nañ ci loolu lii ñuy ñaxtu tey ji def nañ ko ci benn bataaxal bu mag a mag yónnee ko président moom ci boppam. mu waxtaan ci ci conseil des ministres am lu mu wax ministres yi am lu mu wax kilifa yi ba boobu ba tey nag. ndax ñu ngi déglu ñu ngi koy déglu pour mu am yenn dogal yi mu war a mën a jël. Mm-hmm. ba tey mais euh, xam nga lu demee noonu moo ko am gën am solo. Mm-hmm. Euh, lëf kii euh, lii ñuy wax nii ñun depuis deux mille neuf voilà deux mille laataa neuf sax ñu ngi ko doon wax. Mm-hmm. waaye association bu xew tey jii. daal di toog daan man mi kii te ah, waxtaanee wuloo ko ñëpp ñi nga xamee ne liggéey nañ ci loolu ba agsi fii hmm. ah mais man manuma dem na leen arrêté leen ah, manuma tamit di fekk lu nga xamee ne kenn yëgul ma ko kenn boolewu ma ci. Hmm. mu ngoog affaire boobu loolu nit dafay agir avec responsabilité. te ñoom ñoo ma dénk lii su fekkee ne damay cuune ci samay jëf. ëllëg si biir yoon dina ma dab mais ñoom it dinañ ma xam naka laa leen di xoolee te ñoom dina dinañ ne bon kii matul liñ ko def. man liñ ma jox ma mat ma mat ko di ko doxal dinaa ko doxal ba mu jaar ci yoon ak ni mu war a nekkee. ñu wax jamono ji ci Covid 19 bi mbas mi mm-hmm. euh, gis ngeen euh, wala gis nañu jamono ji euh, ni ni mu changé évolution situation bi dafa changé du tic au gis ñoo ngi wax sax troisième vague jamono ji troisième âge ñu waxoon ca ndorteel ba ñoom ñooy bokk nañ ci personne vulnérable yi tey ji ban appel ngay lancé vu que sénégalais yi ñu ci bëri ñoo ngi bàyyeeku. ma ma ne le sept ba le passé ba le ngi daje woon Thiès. juillet. waaw euh, bii passé bii passé bii passé. waaw page bii. Mhm. ba le juillet ma seet ba le juin. d'accord doon xayma li li ñu doxal ñu seet di saytu fan lañ ci toll ak naka la demee. mooy vaccin yi. juróom ñaari région mhm. daje woon nañ fa parce que pare woon nañ ci yeneen juróom-ñaar yi région du sud Casamance ak ñoom Tambacounda loolu ci conseil bi may jiite la lañ ko doon xayma mhm. mais nee naa leen woon ca boobu jamono suñu deful attention am na beneen vague bu ñëw te bu ñëwee dina gën a métti keroog ca ba ba ñoom daan ah waaye président waaye loolu war na jeex kañ kii ak yooyu ma baax leen parce que ni ma gisee yëf yi doxee mhm. ñëpp bàyyi seen loxo kenn dootu takk masque. kenn dootu respecté mesure yan yi mais loolu naka la mën a nekkee déedéet am na mais ba tey jii ba tey jii may wax ak yow nii man dam maa ngi jógee fële euh, fa ma dëkk ci cité ba di ñëw ba bo kay mbay mbay faal mais gisuma kenn ku takk masque te boo seetloo mag ñi rek kay takk réew mi tey jii am na sax ñuy takkatul mais loolu dafa jaaduwul ma ne parce que lëf bu ñu joxee dogal daan ne jaar leen nii def leen ne ba ngal la nañ ko nañ koo surveiller mm-hmm. euh, muy affaire u mag ñi nag ñun de masu leen ñu dégg ñuy yuuxu ba Covid bi ñëwee ba léegi di wax naan joxuñu ñu nii dox ñu te ñu war ko mën a jot tit ndax bu fekkee ne kër yi genn wàllu këri yëpp ñoo koy doxal ñu def dara te boolewuñ si mag ñi mënuñu def dara te sédduñu si mag ñi mënuñu def dara kii te te di bet di mag i teg leen fële mais masu leen dégg ñun ñu yuuxu ko ñu jooy ko jooytu ko waaye nag mais yàllaa ngi ñu gis yàllaa ngi ñu seetaan tey ji bi ñu egsee ci loolu euh, barke moo Ndiaye ñu ngi doon waxtaan ci loolu. ak waa mm-hmm. ministère yi euh, ci service SNEPS. Mm-hmm. ak waa UNICEF. Mm-hmm. te xam nañ ne mag ñi seen place bi ñu yore taxaw fa def nañ ci seen kéemtalaayam kattan waxtaan nañoo njaboot bi euh, tey ñu ngi ci ñu ngi aar. Euh, euh, men euh, bépp xeetu nit bu nga xamee ne yaa ngi nekk ci région yi wala nga nekk ci département yi wala nga nekk ci commune yi. ndax waxtaan googu feeñ na ci taux de vaccination mag yi. maanaam mag yaa ngi génn di dem vacciner. boo boo ko xaymaa mag ñi presque ñoom ñu si bëri ñu si ëpp vacciné ñun parce que bi vaccin bi laata ñëw lu mat ñaar fukki fan wala weer bind naa benn bataaxal yónnee ko kuréelu mag yëpp ñu nekk ci réew mi. na leen nag taxaw leen temm bu vaccin bi ñëwee ay ci leen man ci fanweeri nit ak ñett yi nga xam ne ñoo jëkk vacciné ci laa bokk def naa vaccin bi mhm. tey euh, li ñu doon lam laamee naan vaccin bi nii boo ko defee nii ak noonu gis nga nit ñi nanu bàyyi un di wax ci li nga xamee ne xamuñu si dara tey lii dafa doonoon affaire maanaam ñi nga xam ne ñooy ñooy liggéey vaccin yi ku si nekk di liggéey ci sa côté di bëgg a nasaxaaral liggéeyu keneen ki mais vaccin bi bu baaxuloon médecin yi duñ si jëkk commencé ñii ñuy faj nit ñi te it affaire vaccin mais ñun bi ñu nekkee xale nekk ci tout tànk mais dañu doon vacciné ci école yi vaccin yooyu euh, euh, euh, dañ la doon ñàkk ñàkk ñàkk ay gajja gajja gajja ci sa te ñun ñii ak am ba léegi gajja gajja yaa ngi ci ñun alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla nit ki nag nay wax li nga xam ne xam na ko bu naan amul dañuy nax seen bopp affaire bi am na ba amaat. waaw monsieur Mame Birame ñu lay jaajëfal bu baax a baax. waaw jaajëfal dinañ jaajëfal tamit kontaan naa ci invitation bi.